si moo ngi noonu 100 pour cent Guédiawaye mbokk internet ci Wassare Lamb nuyu na leen mbégat kii ak kontaan la yam ñëw fii si Guédiawaye comme ñu koy defee chaque jour chaque grand combat ñëwal si kër mbër bi war leen lépp loo xam ne mooy préparation physiquement est-ce que mbër bi pare na moralement est-ce que mbër bi pare na supporter est-ce que pare nañ club bi est-ce que pare nañ tey bu ñëwee fii si Guédiawaye nag xam nga ñoo ngi fii si Gàkku 2 mais xam naa ne Guédiawaye boo ko tuddee da nga naan Malick Gakou non kii di Malick Gakou Gakou e Gakou de mbër mbokk internet bi moom moo war a tase kii di Bébé Diène bu Medina derby Medina ak Guédiawaye la yàgg nañ di ko gis waaye tey da see raw ñaari xale yi dañ leen namoon ñaari xale yi nañ bëggante woon ñaari xale yi xam ngeen ni euh, chaque fois depuis seen face à face ba léegi fu ñu tee ñoom ñaar noo def ñu sànnante ay kàddu xaw a sax di yëkkante ay coups mais tey ku bi kenn du leen àtte ab bi dinaan pip comme ni ma waxee ab bi moom jaxase rek mbokkeen sax nag di Wassare Lamb sama cameraman Khalil xool si yi la lañ fi na def ma ñëw foofu ma ñëw ma ñëw salaamaaleykum. naka mu. naas kay. yaa ngi kuul. maa waaw. naas kay. Bébé Diène. Bébé Diène lu bari doole gaan. billaahi buñ ko jàppee mu xam ne lu ko benke ñenkeew ko suñ ko jàppee dina xam ne eh xale bi moo aye eh, ñun géejawaay leen dëkk ñun ñun amul daw du ragal noonu la demee. yow si Bébé koy xool gis nga ko. Bébé Diène boo xoolee doo ko gis da nga koy xippi wala yow doo xool. mais bu boo xippee est ko gis. booy lan yow xanaa doo gis. gàkku ngay waxal de wala du gàkku. wala da ngaa fàtte gàkku yow. waaye. mën a bëre. mën a bëre. école it Balla amul kenn ku fay nekk te mënoo bëre boo jàppee rek dangay bëre tamit euh, duñ ragal ñun duñ ragal dara te buñ ko jàppee lool si lay xam nu mu demee noonu la demee nag gaan xeeb bi jën ah xeeb moo ko dama xaw a mën. kii bu nekkee si jeel bi day fobeere si jeel bu fa nekkee day fobeere day jooy ñun duñ jooy ba fajar noonu la demee du xippi xanaa du xool voilà noonu la deme na gaar waaw. waaw naka ñu ngi xëbe bu baax waaw. si bébé Diène dañu ndax galax ndi ko ak sëñ Fallou. ngeex nga mel ne ngaa tiit yow miy wax sax. <laughs> non du tiit sax yi dore ba muy du fekkee dërëm bu ñuy nelaw sax duñ tee te bu si kanamee lay leer barki Baye Karim billaa walaay ba muy day xaar gaan. ndax man de mën a daan bi ba daan keneen ku ku ko ma ni waaye yow dama bàyyi yow nga may mën na daan ba muy jël yow xanaa doo xool yow. billaay wallaay noonu la demee de gaaw da koy defaral billaay ci kanam. bu xeexee. bu xeex bu mu xeex bu dee xeex rek bu fekkee bëgg na kanamam googu noonu ni mu naay see noonu mu yóbbaale ko gàllem quoi bu mu bagaar bu bagaaree ñu gaañ ko xanaa dof yow. bu bëree mu bëre ñun dañuy xeex la ñuy bëre lépp la ñuy def. billaa walaay ragaluñ loolu loolu dawul sax suñu yaram ba ba jëm du tuus. kanaara di yàlla. billaa walaay. dana baax rek yéen ñi waaw naas comme que noonu la demee si kanam yaakatul dara nañ baabe si kanam lépp fa lay xewee fa lay leeree. tey combat lam mën a yóbbu. waaw fu sori la ñuy yóbbu fu sori la ñuy yóbbu Bébé Diène Bébé Diène du kaa sax pi la walaay du kaa méttiwul ñu ko gën a métti ay booy Dakar gàq na la leen def da leen a xaarloo pi la walaay ñoom ñëpp waaw. di nga dem a dem lu tax ba du dem stade yow. baax na si kanam stade moom du yomb booy Medina nañ ñu xaar nag de ñu ngi leen pareel lu garaaw nañ ñëpp xaar man la demee nag ragaluñ lool sax ragaluñ fuñ jëm ñun. booy Medina léegi làmb de. booy ay tàppel lañ ñooñ duñ mës a yeewu si làmb. billaa wala duñ mës a yeewu. Eh, ñooñu duñ ah. nelaw. duñ mës a yeewu. ndax dañoo ndoxum cité dañuy xaar lu bari bala moo lekk day pikiiru bu pikiiruwul day xadaawoon fa yàlla bilaay walaay ki kanaara jël la ki day toog ba xóon jam jël gaay tëddee mu génnaat ñun dereng du daan ñun tapatu nu loolu Bébé Diène ndereng pire la dañ daan pare yóbbu ko Guinée mu jaayee jaabere bilaay walaay dañ koy daan pare yóbbu ko Guinée mu jaayee jaabere wala futi ay yow wala muy jaa ay mboroxek ay acake pël fuuta la pël fuuta daan wala muy dëbb ay bëgg ji jaay kooku kanaara day dem gaa di ga tëddee muy génnaat bëjën kët waaw waaw gis di waaj a làmb ji rek. gaa yaa ngi si drapeau bi di waaj làmb ji rek. fas yéene yóbbu gàkku dë yàlla may ko ndam. pare ngeen est-ce que. nañ sabar yi nañ sabar yi ba pare. ñooy yëngal esaat tey. ah yow côté géwél bi nga féetee yow. waaw waaw ñooy ñu ngi koy indil malfaiteur bi ci làmb ji gàkku dë dina ko linjaa. ñu ne ki ki jaca pace ki ki jaca ki coprof rakit ki ci paki ñu def re jërëjëf re jërëjëf ki jekki jekki jekki coprof rakit ki si paki jop rakit jekki jekki jekki gàkku dë loolu la ñu indi loolu ambiance la te mbër mi mbërub géwél la tey dina neex na yëngu waaw daa dégg daa am dégg gi mais est-ce que amoo lépp looy tiit looy tiit si bébé Diène non non non non non non booy doomu mbër la de waaw mais gàkku moo fi ne gàkku ko xamul dégg na ko booy gën a tàng si làmb ji moo leen daan tàng ah, Bébé Diène Bébé Diène day xaar day xaar xam na Gackou 2 bu baax. combat di nga gis bëre nag di nga gis bëre ndax ay ndaanaan lañ ñaari mbër lañ di làmb ju neex la ko làmb ju neex waaw. waaw ambiance bu bees tàkk tàkk waaw waaw ak Gackou jeex na. cent franc. cent franc. booy ñoo jënd. ñoo ngi jënd ndànk-ndànk rek. Géejawaay ak Médina fa mooy gën a jaat. ah. Géejawaay ak Médina fa mooy gën a jaat. non man fii laa nekk néew Médina moo tax fii laa xam quoi. fi ngay jaay. non rek fu ma sentiree rek ma dem. sa combat da waaw. Géejawaay dañuy nag ma génn Géejawaay ah dem feneen. fu ma sentir rek waaw Pikine Géejawaay fu ne laay dem quoi. foo am mbër foofu ngay dem. ah. foo am mbër rek foofu ngay fu nar rek ma dem fa. faroo kenn. waaw. <laughs> waaw daan rek daan rek daan lañ xam xam ñun Pël Fuuta duñ daan. Bébé Diène ba ñuy bëree boobu xale la. woy li ñu def si làmb dafa ko ko si làmb Bébé Diène moo tax ngay war tiit nag. non tiit xale nga. deful dara bébé Diène deful dara musu ñoo am adversaire ba tiit si làmb buñ naree tiit dem tekki si ñu ngeem gàkku de tiit moo tax day am problème adversaire. retour de bébé Diène. retour de bébé Diène gàkku moo koy freiné retour de bébé Diène tiituñu ko. xeex bu xeexee bu ngeen xeexee mu daal leen ngeen bëree mu daal lépp lu mu indi fii la koy fekk bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko bébé dara. sëgg nga laaja waa làmb ji kan mooy Gackou 2 Gackou 2 tiit moo tax laa la wax mën a bëre moo tax du am adversaire gars yi ñemewuñu ko. bu tiit moo tax du am adversaire Bébé Diène jën ko ça veut dire kon da jaakaar na jàpp na ne mën na ko daan. non Bébé boo gisee mu jël Gackou xam nga wax ji la ñi naan kuy arrêté Gackou kuy arrêté Gackou moo tax mu ñëw jël ko mee du dara jemewu ko du si bëre du si xeex amul bëre bu ñuy jaaxal Bébé Diène. làmb gaaw. bu arrière combat bu gaaw la bu arrière nag xam ñu taxaw xaar ko ba bu taxawee rek ñu jàpp ko daan ko Pël Fuuta la fit. dugub national ah? tamit. wu fi gaaw fi la juddoo. Bébé Diène Sénégal daa paas ñëw déggul olof bu baax. Bébé Diène Guinée nga juddoo Guinée man Papis maa wax ak yow. ah, ah? man sénégalais eh, laa sant loo loo sant. waaw. Ah. Eh, ñun pël duñ daan ñun pël duñ daan pël pël duñ daan. booy weex nga. booy weex nga ah, bi naka la. Mbaye Mentien bu école Balla Gaye. Mbaye Mentien bu école Balla Gaye. waaw bu dëppoon yaaw jàll. dëpp bu ba. waaw. maa ngi nii de. dina yaaw jaal lan nga dëppee ko xam nga rek foog nga dëppee ko noonu mbër mag la moo tax loolu moo def mbër. Ah. waaw di suñu papeer Balla lépp moom la tey fii fi ñu toog nii dëkkam la quoi goxam la mooy Siteu Barak ndax lépp def naa ne ñun bu nee ba ñemee si làmb moom moo tax ndax moo tëjee école boo xale yëpp nga xam ne kenn ku ay mbër mu def na ay mbër waaw muy muy gàkku mi tey war a bëre di ñaan yàlla may ndam mu Youssou doomam. muy muy Samba Lawbe muy ñu fi nekk ñëpp daal nga xam ni ay doom Baye Baal lañu te ñun Baye Baal moo def mbër ak suñu kusi yi ku si mel ne monsieur mu tukki mi ak euh, Lamine Faye waaw Lamine ak ay ñoom bés ay ñoom monsieur ay ñoom Balla Gaye 2 ay ñoom lees waaw ay ñoom Baye Ma Ndiaye tey ñun bu nee ba nekk mbër rek ñoom ñoo tax ñu nekk mbër. te na ngeen préparé na ma naan gàkku gàkku moom kenn amul loo koy ndax su ma nee gàkku tey su ma ko dama naan ko jigéen bu sëy ba tas la ndax jigéen bu sëy ba tas buy delluwaat si sëy kenn doon ko wax toogeel ne ndax gàkku def naa gàkku moom tàkkusaan bu ne bëri na ko ndax mbëru mag la gàkku kenn doon ko wax bëreel ni bëreel ne gàkku daanee nu ne mbër xëy na kii du woon yoon làmbam sax mais ñu ko waroon jël ñoo ko warul jël ñu ko waroon ñoo ko jël moo tax mu jël kii mais bébé jën du woon sax lambam loolu du risque parce que tey euh, ñaanu ma ko yàlla bu ko bu ko gàggu daanee dan naan rek gàggoo ko man. léegi bu ko daanee. léegi bu ko lu ñuy wax Bébé Diène day jël place bu gàggu mais tey bu ko gàggu daanee gàggu amul mu koy per parce que gàggoo ko gàggu moo ko raw si làmb mais li ma la wax rek lamb la dañuy ñaanal gàggu yàlla may ko ndam waaw gàggu moom suñu gàggu la ndax man ma ko xamee ba léegi ñoo nekk ma ak moom mais mosuma gis mu changé. combat bi gaaw dafa nar moom euh, dafa nar a gaaw dafa nar yéex bu ko kee gaawee rek mu gaaw bu ko Bébé Diène gaawalee day day yomb si moom rek. yéen da ngeen jàpp yéenay fabriqué yi kon fu mu toll nii yéen a war def lépp. waaw moom li ñu may wax rek ñun maanaam waa lamb xam nañu gàkku gàkku xamul dégg nga ko yow xam nga gàkku sax yow mii yor sa télé bii dina ñaan yàlla dafa leen jàmb yéen tamit kenn du yéen parce que yéenay fekk ruq yi ruqaat yi leen yéenay fekk mbër boo xam ne siiwagul ngeen siiwal ko yéen tamit dañ leen ñaan yàlla dafa leen jàmm ndax li yombul quoi xam nga yor sa caméra di di génn nit ñi xam nga yombul dafa metti te leen ñaan yàlla dafa leen jàmm li ngeen yor mu doon ba nekk ay télé comme ay Lamine Samba ay ñoom Bekaay ay ñoom xam nga Modou Mbaye fii la jaar moo tax dañ leen ñaan yàlla dafa leen jàmm di wax ne lamb ji nag suñu lamb la ñu ngi koy ñu ñun waa Guédiawaye ak waa école Balla Gaye tey daanu gunge gàkku ñu ko war a gunge ñu ñaan yàlla may ko waaw di wax nag beneen bi man maay mburu Papa Thion ak mère Diaga faramaareen laa nag waaw di wax mi may dégg xam na ma baax mbay meñcee luru waaliye toq sa bënn saañ bëréer waa géej waaye xam na loolu waaye kon bala ngay xam na loolu Wally Seck yaa ngi may xool yaa ngi may dégg dama ni foog nga ñeme yoon bi waaw li ko Papa Thion daan waxee yal na ko yàlla yëm taxare ko àjjana sama yaay jaaga tamit maa ngi koy nuyu baax di ko jox wàccu waayam di nuyu famille Faramaren gi yëpp di nuyu Aïssa Balago Aline Seck ah di nuyu Alaaji Lees di nuyu Pago di nuyu euh, soxna madame Seck soxna Waly di war man Faramare laa. Faramare la waaw. waaw ah, tey gàkkoor xew la dégg nga. waaw après ñu dem soirée Waly Seck. waaw ngi lay siyaar di la bëggee di la jox sa waay di nuyu waa Wassare Lamb di leen wax seen liggéey rafet na ñu ngi leen di kontaane di leen ñaanal ca kaw ca kanam ci lu baax. c'est normal c'est Wassare TV qui nous waa sant rek sant rek di wax nii bis bi boo xoolee niñ ko waajalee ci tekk ak tee ak dal nga xam ne bis bu ñu soxal la bu ñu ñor la ndax Gàkku dafa nekk nit ko xamante ni dafa neex a faral yaru na am na taalibe xam na lu baax xam na moom mooy kan te géejawaay laay gën a ñaaxaat donc ñi ngi ci sax mais ñu gën a xamaat kan mooy Gàkku ndax xale la fi la defee léppam suñu kanam bëree fi mbapat def fi arène daan mbër yi nga xam ne ñoom ñoo te ñëpp ci làmb xale yi nga xam moom la génération mu daan leen moo tax gàkku faaw ku jara jàppale la làmb xam mooy kan delloo ko nag fi mu war a nekk moom fi mu war a nekk na ko làmb delloo moom gàkku ndax maa daan ceeli rek doy na sëkk ci làmb nga ne waat nongoloo musul daanu maa ko daan doy na sëkk nga ne Zator Bastafa su ma koy lim sax du jeex ba ci barke de moo Ndiaye petit ñaami gàkkoo ko freiné booy Dakar 10 kombaa musul daanu gàkku ñëw daan nañu génne ndaanaane daal jot nañu génn ndaanaane man foofu laa amee ci lu may wax. tey ku la. waaw dañ ko koy nangul nag waaye nag ndaanaan bu gëj tool la moom xam nañ ko amaana bokkuñu gox ndax ñun géej waaye moo ñu ñor waaye nag ndaanaan bu gëj la moom Bébé Diène mënu toog ñaari at ba ñetti at bëriwul gaa ko di compétir bëree ku nekk làmb sax moom moo waxul dëgg mais gaa ko heure di woon sax moom Bébé Diène ndax du ko fi xaar ndax li tax at yi Bébé nekk yëpp ci tolof tolof yi boobu gàkku mi ngi ci compétition di bëre di daan daan bëri yëpp ba war a bëre ak ñeneen ak ñeneen ñu bañ koo jël mu xam ne làmb gañ-pee ko quoi làmb moo koy fay moom gàkku parce que du toogee bëriwul rek day perdre looloo tax nag gàkku jël bébé jën te moom nag xam na xam na làmb ji fi nga ko mën a yóbbu ak fan la ko mën a delloo quoi garant moom gàkku xam na làmb ji moom fan la ko mën a yóbbu moom bu daane bébé ak waa waa Medina nañ def seen bopp ni waa Géejawaay bëgg nañ làmb ji waaw bëgg nañ làmb ji bu baax a baax a baax ndax géejawaay dafa jot ñu delloo gàkku palaasam te ñu ngi ci bu baax a baax a baax ndax fii la defee lépp mbër la champion la yaru na dal na di nuyu nag waa Cité Barak yëpp ndax gis nañ mobilisation bi di wax Père Balla suñu góor ga yàlla na ko yàlla yërëm ñun boo gisee mënuñoo am nañ yitte yu bëri yu ñu war a def mais comme bisu waa Cité Barak rawatina école de lutte gay dañuy bàyyi suñu lépp ñëw ndax Père Balla moo ñu ji lool. waaw xale yi tamit mënuñu lu dul suñu xamee lu baax wax leen buñ gisee lu baax wax leen di leen ñaanal ñoom yu soog Samba Lawbeek mbay Fall mi fi nekk bépp mbër bu nga xamante ni day takkee fii rek yàlla defal ko jàmm ñoom ñëpp nag bëgg nañ leen ak école de lutte Balla ak waa Guédiawaye gépp nag di leen sant bu baax. Eh, ñu ngi lay ziar bu baax. tur Seydou waaw. Bébé Gàkku de. Bébé Diène day xaar Bébé Diène wax jee bari rek te sama maam dama doon wax naan ma ëpp koy làmp mbedd Gàkku daal luñ koy wax mooy tey na yëngal si suuf ñu yëngal ci kaw ñu dox daje gan gi du fa am dara xanaa xamoo ku bëri wax ku bëri wax du am dara. mais dafa namoon làmb tey dafa ñëw pour maanaam jël place am si làmb. non mënu ko fay jël yow xalaat nga bu baax xel du jariñ lu doo xalaat de. te wax lu jar a saytu la moom nag day nekk di wax rek te du xool lu muy wax bu ko jàpp gàmpee dina xam ne lépp dëgg dina xam ne nga daw ba daanu bébé jën yamal mënuloo ma jooyloo nga dooro deppee di nga daw ba daanu bébé jën yamal mënuloo ma jooyloo ñun Saké du ñu daan ñun Lereng du ñu daan bàyyi leen bàyyi leen ñun Lereng du ñu daan ñun Lereng du ñu daan bébé jën bébé jën day maray la aye yawo bébé jën day maray la naa leen fu mu toll nii ke eh kii mel ni ñàpp nii war ma ñàpp eh war ma ñàpp waaw ah. sëñ Mara ñoo ngi lay nuyu ñu lay siyaar yaay sëñ bi ñu waaw man <laughs> combat nga jël. waaw da ngay waaj combat da ngay comme d'habitude rek comme waaju ngeen doon waaj rek comme même chose la rek mosuñoo changé dara. benn parce que ñu doon tey ak Bébé Diène du benn. Bébé Diène Bébé comme yeneen mbëri la rek daa toll ni yeneen mbëri tollul wala wala daa daan ñu ngi daanul ñun. mais dafa toog lu yàgg ñëw si làmb te bëgg jaata place am si làmb mu nekk mën na nekk retour boo xam ne retour bu am solo la ngeen jël ko. liggéey bu mu doon def moo dul yoon na bàyyi loolu dañoo ñu dalal ko dañ koy may xaalis ñoo ko dàq bëre ñoo ko doole ñoo ko gën a sadik bu dee bandi lay jaay fii la ëppee bu dee lay jaay fii la ëppee bu dee bëre lay jaay fii la lépp lu mu indi rek ñu ñu ñu si ginnaawam ñu taxaw nañ di xaar quoi sëñ Abdou Karim suñu sëriñ ñu ngi koy ziar biir ñu ngi koy sàkku ñaan si Gackou 2 ñun ñun gàkku do di bëri moom di xeex moom. mooy yoon gàkku do daa am ku mu mënta xeexal amul ku mu mënta xeexal gàkku do amul ku mu mënta xeexal muy roi des arènes ba suuf amul ku mu mënta xeexal. gàkku do moom mooy loolu noonu gàkku do mbër boo xam ne la mbër li yàlla yàlla ñu yàlla dolli ndam rek suñu faale. dafa nar gaaw a dafa nar lépp mën naa ne nañ xaar lépp moom lu mu indi rek moom mi xale. lu mu indi rek ñun ñu koy xaar. est-ce que yéen war a nekk favori. non favori. lamb lamb amul favori. waaw. kon daal ñoo ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay sant yàlla rek. maa leen fi jàmm rek. dégg nga yaa ngi maa leen di dégg tey ñëw sa dëkk sa géej waay sa xarit Gackou 2. xel dal na quoi ñun. xam nañ qualité bëre yi nekk suñu mbër Gàkku dañuy contact ak moom muy contact ak ñoom Youssou Thiat Daouda ñëpp waaw di ko ñaanal ndam daal waaw parce que nag wax ji nag bëri na trop bébé jën bébé mais tey dinañ xamante ne nii tey dinañ gis bëre quoi ku xef doo gis jël. bëre nga wax c'est-à-dire que day ñëw pour bëre si wala pour ñëw day bëre si bu laajee bëre mu bëre bu laajee xeex mu xeex parce que bébé jën. da lay woo si xeex mais gëmul xeex parce que moom bëre mooy avantage am mais gaaku tam bëre avantage am la xeex avantage la xeex ut bunt la waaw mais lu wér te moom mooy buñ jàppantee moom avantage bu la Bébé Diène toog na deux ans yoo xam ne taxul ser ngembali tooyul mu ñëw bëgg a jàpp koo xamante ne daf si nekk gars yi jaakaar ne moom mooy favori ñu jox ko favori te gars yi xamul làmb rek ñoo ko jox favori donc su ma doon jox favori gàkku doo laa ko jox. mais ni béy itam ko gàkku Gackou 2 mooy favori effectivement mooy favori waaw moo ko bëre moo dàq xeex yow xanaa seetaanoo combat Bébé Diène ak kii mbër bi mu mujjee bëre nu mu booy Boy Dakar daf ko dóor ñoom ñaar ñëpp ragalul xeex day day xeex day bëre. waaw di ñaanal nag waa école Balla Gaye booy si des ñi amagul combat yàlla may leen combat ñi am combat yàlla may leen dem man nag maay annoncé wala sama combat bi ma dëgmal. di si ñaan di si woo waa Géejawaay yëpp ak waa Bayax ak waa ASC Déggo ASC Lom Ziko journée Zarko kii Bébé Diène Zarko Diène Kairé waaw si laay bëree Mor Kankang Youssou Ndour ñooy bëri spécial maa ngi si maa ngi profité di annonce ah waaw dañ ma doon utal adversaire nag parce que sama combat ak Simba dafa yàqu si journée Tyson 2 Thiatou Yoff si laa waroon bëre mais yàlla def mu xaw a yàqoo si ñun quoi waaw Simba moom trois victoire la trois man waaw ñu ngi si trois combats nag waaw di si yëpp waaw di woo waa Géejawaay yëpp di leen wax nañoo jàppale seen doom Gackou 2 yàlla may ñu ndam si kaw Bébé Diène jël bu amul benn werante tey Géejawaay ñëpp a mobilisé boo duggee fee ba ma duggee fee di ñëw damaa kontaan tey ñëpp a mobilisé parce que 100 pour cent Géejawaay bi ñuy wax mooy loolu dañ ko gën a dëgal tey parce que booy bi rek lañ lañ am instant yi dafa war a ñëw confirmer lu leer te Géejawaay gis nañ ni mu demee temps yi waaw di di nuyu bala Gaye nag suñ tëddafil di ko masaw si defet bi mu jóge waaw ñu ne lay ndekkee man ndekki naa de ndekkee naa sept pain la les chips rek damay xaw a kii rek. waaw kii la euh, crack. am nañu koy wax waaw. man ndekki naa pare crack la crack. set <laughs> sept pain la laan ndekkee ak potu ndaa meew. potu ndaa meew Laurent nag dama lay yóbbante si moom. Laurent temps mi ngi may tëgg si TikTok bi maa ngi dégg commentaire am yi booy di wax man les ñaaw laa soxla Laurent soxlawuma ko daanu fi mbër dama laaj. Eh, non mais man bëriwuma moom man daanu fi mbër. alliance Baldé mi mu fi daan kan ban palmarès la def. yow Laurent boo ko jëlee rek code la. Laurent laa soxla. lépp Liss Ndiago laa soxla Laurent soxla ma ko. man sama palmarès ku ma ne Laurent laa daan lan la may wax. kooku la du mbër Lamine fu mu dem ni ko Forza mu dëpp carte gi naan non na bëreeg Bou ne moo ngi daan. moo ngi daan mais bis bu duggee si man Liss Ndiago laa soxla barke Serigne Dame Mohamed. Laurent taxumaa jóg temps nag cool yi bëri na trop bi foo tourné maa ngi gis gars yi di commentaire du sa man Laurent daf ma xoolal mbëri ma daan booy teg saako keroog si victoire bu rëy la jóge ama bu yaraax ñoom ñëpp maa leen njëkk a dégloo mu ñëw. gis naa ko xeex moom day xeex di dawaale man du ma bu may xeex du ma daw damay taxaw dëgg sa bopp. non du stratégie boo génnee saako dañ lay affecté dagg sa xaalis ah bëggee dañ lay affecté dagg sa xaalis na feneen si sa yaay booy wala taxaw dëgg suñ bopp waa Géejawaay yebewul na lool a ah, sama gaay ah waaw di gërëm waa mafia fiñ bi nag ak ñoom Bamba Café Matar Ndiaye Matar Café gaa yëpp su may bëre duñ nelaw waa Bayax ku si mel ni Sita gërëm gaa yëpp maa dooki Bayax maa dooki Bayax waa waa Café gi waa waa benn waa ñaari Baye Fall combat bi ñu dëgmal ñu ngi woo ñëpp di woo tout tànk yi di woo gaa yëpp daal ñu def comme ni ñu daan defee rek jàpp daan incha allahu rabi waaw di leen ñaanal jàmm. déggal loolu. bi